jagleel xeex feebar bii di guwaatex nekk na benn porox ndoolo ci ñi nga xam ne ñoo amee bi la doomu jàngoro ci boobee occasion nañu dal di profité wu di gën a xamle askan wi feebar bi nga xam ne amoo nekk ci ñoom ñu di ko dund. maladie de la thyroïde xam nga dañoo dañoo bari am na ci bi nga xamante ne par exemple boobu goitre la goitre simple bi boobu moom sa sa sa sa sa yaram. ni muy yàq sa yaram mooy de génne sa baat bi mooy bi nga xamante ne nag bi ñuy wax la maladie de Basedow boobu moom euh, tremblement des mais exophthalmie les yeux sortent de leur orbite il la gorge qui s'enfle il y a le cœur qui cœur bi buy buy buy battre à tout rompre ah, tànk yi boo xëyee tànk yi day métti. ak mettit boo xam ne dafa jéggi dayoo ba kenn mëndukaa taple moom la ñi nga xam ne ñoo amee bile doomu jàngoro moom la ñuy dund waaye lu mu metti metti mu mel ni faju gi moo ko gën a metti parfois aussi euh, traitement bi li ci metti aussi mooy euh, kii bi euh, garab bi parfois day manqué. da ngay traité ba si bi garab bi manqué te garab bi boo ko naan une semaine rek ba deful ndànk da ngay récidivé waat traitement bi aussi am nañ problème ci opération yi dañ ci gis ko ñu traité ba mu stable ñu war koo opéré mais pour mu am opération amputation c'est d'énorme difficulté day dem ba bu deful ndànk day chuté waat mbootaay gi nga xam ni moo ëmb bépp sénégalais buy dund bi la jàngoro dara taxu koo jóg lu dul jàppale ñi nga xam ne ñoo amee goitre waaye mu mel ni ñoo membre yi nga xam ne ñoo ci bokk gisuñu bu baax ndimbal ak état action sociale am na bu mu commencé di ñu jox mais et par rapport ak li ñu soxla par rapport ak association li mu soxla c'est modique lu tuuti la nit nag lu mu la jox ci alalam da nga ko ciy santé mais vraiment ça ne suffit pas ñu daal di jëloon comme thème les malades à cœur ouvert journée bi daal di tombeek ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai ñu daal di koy célébrer ngir mën a sensibiliser askan wi ci feebar bi di goitre association bi nag di woo état du Sénégal ak képp koo xam ne bon volonté nga nga ñëw jàpp ci combat bi ngir ñu mën a soulager li nga xam ne mooy mettit bi nga xam ne ñu amee goitre moom la ñuy dund